ñaari xale yu faatu ki ci mujj néewam repêché nañu ko ba yóbbu ko ci hôpitalu CTO dinañ ciy dellu siwaat lool ci ñaari fan rek la am ñaari xale faatu ci géeju parcelle Cambérène ñaareelu fanu grève wu médecin yi itam euh, tey jii la ñaareelu fan bi fi ñu yemagum xel dal na ci gum la ñu bëgg mooy ñu respecté leen gi lépp a ngi jeexeetaloo nag ci acte trois de décentralisation dinañ ci dellu siwaat affaire Tamsir mel ni luy féewale nguur gi bu ki waxee li kii wax la ca des te ci cëppaandaw ja njiit réew mi mooy jël dogal di leen di atte waaye tekkam itam laaj samp ci tàggat yaram dinañ ci ànd ak président Lamine yi yéene kaay laaj Ahmed Aïdara asalaamaaleykum ci ñaari fan ñaari xale faatu nañu dañoo lab ci géej gi ci Parcelles Assainies ki ci mujj démb la lab ab néew mujj nañu ko gis mu ngi ci hôpitalu CTO leeraleeg Alassane Balde géej gi daal di jëlati bakkan ca plage ba nekk ci diggante unité 15 Parcelles Assainies ak Cambérène mu di ab waxambaane bawoo ci Touba suñ sukkandikoo ci seede yi moom dafa ñëwoon vacances yi fii ci diwaanu Parcelles Assainies ay ayu bés a ngi nii ñaar ci ay ndaw yi seen bakkan naa raw gannaaw ay ndaw ñoo leen daal di sowe ñi nga xamee ne ñoo fekk mbir mi nag jàpp ni ndaw yooyu lu toll ci juróom ñett la ñu woon ñoom ñoo ñëw ñoo ñoo nag doxantu ci bile plage gannaaw bu mu gisee yenn moroomam yi daal di ci ndox mi moom moom leen naam sax mënu ko la leen daal di topp laata ñi fa nekkoon di xam ni moom mënul ndox daanaka yëf yi fekk na mu ëpp yoxo ne vague yi foor gi mu foroon tax kenn mënuloon dara ci moom sapeur pompier nag gannaaw ba leen di yëgale def nañ seen kéem kattan ngir mën koo gis ay waxtu ñu nekk ci biir ndox bi di ko war naka noonu ci mujjantal ba bi lëndëm bi duggee la ñu daal rek arrêté li nga xamante ni mooy yooyu la recherche ñu fàttali ni ki barki démb it ab ndaw ñàkk na bakkanam ci boobu les plage ndaw boobu sax mu nga dëkk ca quartier déggoo fii ci diwaanu Cambérène moom mi naroon def examen BFM am ëllëg si fekkee nag ndaw boobu la néew ay mbokk mujj nañ cee jot ba dat koy xopp safaano ak ndaw bi nga xamante ñàkk na bakkanam ni ki démb ne moom du kenn ku ko tegangum gët jamono ji doy sëkk ni misaal ngir rek ñenn ci ay wëju daal yëkkati seen kàddu di sàkku ñu gën a bàyyi xel yooyu la ndaw. ñu ñaax seen doom yi rek ñu bàyyi géej gi parce que xale yi da tere tere bay bëgg a dee. ndaxte la si ni Alassane Balde Zig FM. Alassane euh, SAEMS di syndicat bi boot médecin yi nekk ci Sénégal dañoo door ñaari fani grève démb lool ci doxalinu Sénégal bari na lool ñu tawat te faj wu ñu gis médecin bu leen xool li ko sabab mooy euh, yéex a fayeeku geeg yeneen ci ay jafe-jafe ñu ñambaat si nag ñu di leen dàq dàq gu tegul ci yoon muy licenciement abusif bu ci mujj di docteur mbay Pay loolee nag tax ñu entamé ñaari fani grève yoo xamante ni bi daañ ci euh, démb la dooroon te jii lay continuer lu mooy loole daañ ci ñambaas yeneen plan yu gën a metti bu fekkee delloowuñu waat seen nattango yi ñu dàq ci biir système bi lu may itam dàqu ba internationaliser seen xeex bi dem ba ci kanamu bureau international du travail ngir daldi di ñaawlu licenciement abusif syndicat yi taskatu xibaar yi muy syndicat des professionnels de l'information et de la communication du Sénégal SYNPICS fas yéene amal ben dox bo xam ni doxu ñaxtu waaye ci jàmm rek lay tege sabab bi mooy bëgg nguur gi daal nga code de la presse bu bees bi nga Euh, ñii ci ëpp di yëkkati ay kaddu la ñuy bàyyi xel mooy wàllu peine beeg euh, wàllu sanction yi ciy nekk te xëy na ñooñu ñi ci ëpp ay patron de presse la ñu yu ay journaliste la ñu woon xëy na kon cëppaandaw ju yoone arrangé waaye li ëpp solo itam ci nekki ni taskatu xibaar bi mel ni ki convention collective bi nga xam ni war naa soppeeku ndax la leen di fay tuuti na lool te lu war a soppeeku la ni ki itam seen situation ci biir kër yi ñenn ñi di ko camoufler nag euh, bu ñu waxee rek ñu wax ci wàllu peine bi peine bi rek peine te fekk na la ciy soxla si mooy euh, nu kii liggéey ci boppam loolee mooy di tax ñu gën a bëgg a ubbiwaat xeloo ak xalaatu askan wi ni ki itam gouvernement bi ci fàttaliwaat leen li seen wareef ak li ñuy xaar ci ñoom ci ñu saxal code de la presse boobee Ali Fall mo toftalu ko ci ci ke jité sen pix ay kaddom ci mo Pierre Faye ko tatan ñom wax deug yàlla li ñu wax nekh na dégg parce que nee nañu bu fekké né pour euh, le code de la presse bi ci mois d'août bi dinañu ubbi ay négociations avec acteurs yépp quand même pour que ñu finaliser code de la presse bi mu doon code bo xamni ni un code consensuel lay doon également ñoom nee nañ dinañ def tout pour que patronat bi ñëw fekk ko ñu waxtaan sérieusement pour que mun ñu mun a cette nouvelle convention collective comme ñun ñu tégal ci suuf marché bi en attendant tant que ñuy tool te xam dinañ am lu ñu bëgg ci mag te lu ñu gën a tax dawal xel mooy wàllu cotisation sociale yi nguur gi jël na ay engagement yu ferme déjà que semaine yi passé am na ay inspection yoo xam ne ñu ngi koy envoyé ci rédaction yi pour xool condition de travail yeeg niveau contrat yi nit ñu yore ba xam ñu leen di cotiser rek yooyu bu fekkee leeru ubbi xool nañ ba xool na dara loo xamante ni dal la xel génn ci nit ñu dundalaat suñu envie wàcc ci mbedd mi pour xeex pour que nit ñu dégg lu ñu naqari bu baax a baax Kade baye koti alifal bo senpeks. Fatile klen ni tisen euh, komunikevi le nye nan moumoy euh, def ben euh, Marche Pacifique. Mouni dok jamou bo dan ni entepele kilifeye ndak renyo gis ni boble lwa. Aya gana lol ki tablo depiteyi asetan kilifeye kwa gwa sakhal matan legi. Jou reme akte balegi mouno gouni kwa sakhal. Afe retam sir fey konsilou Senegal. Ben ekite Marseille. te ñu tegoon ni kat yi tuuma ci koom ci génn sàkkaram ci mbedd meek yu mel noone ba ñu ni woon jël nañu dogal bu ñu ko dàqee ngir mu dellu soit fii ci Sénégal dogal boobe bàyyikoon ci ministère bi yor wàllu affaires étrangères te itam ñu xam le ni njiitu réew mi rek moo am sañ-sañu dàqawul euh, fal diplomate wala mu dénk loole euh, ministère bi yor lu jëm ci wàllu affaires étrangères waaye loolee amul bu ñu bàyyi xel itam ni ko Souleymane Jules Diop waxee kenn dàqul Tamsir Faye ndax gisagul dara benn yoon lu koy notifié en tout cas cacophonie bu doy waar la ñu nemmeeku ci gouvernement bi ci ay xeetu ministre ñaar yu xaw a dend kenn ka yilif ko ci des te xëy na duñu respecté hiérarchique boobee di indi jafe-jafe mel ni kon ci nomination yi bari na loolu ay njumte ak itam daa mel ni buum gu rëccantalu ci seen baat affaire itam surfey ñoom gouvernement bu Sénégal wala déet Pape Cheikh Sylla mën a waaxu de lu baax la waaye nag xam yoon wi daf koo gën góor Abdoul Aziz Sy Dabakh moo ko daan wax mu mel ne war nañ ko fàttali président Macky Sall yenn saay nu muy indee ay pal dafay indi ay laaj yu bare ñaari at ginnaaw la doon fal kii di Tamsir fay étudiant dong la woon foofu la ca Marseille mu def ko consul général bu République bu Sénégal foofule la ca Marseille ñu bari jaaxle woon si loolu nag moo indi lii tey ñu koy tuumaal moom Tamsir fay ni kii dafa def ay mbiru daanaka Samba Soura Bari yàq kon deru diplomatie bu Sénégal ci noonu Mankeur Ndiaye ak ñi àndal song ko waaye juum ci cong gi Pape Khaly Seck di secretaire général adjoint moom la Mankeur Ndiaye yónni ngir mu xamal ngóor si ne tekki nañ ndombal tànkam te sax seen kilifa ñoom ñëpp di Macky Sall jëlagul benn dogal tax moom tamit mu dëgg tànkam ci mbir mi mu doon réero bu yée yeneen i réero ci biir gouvernement bu ma ci Sall def ci fes ne hiérarchie di maanaam kilifteef jafe nañu nangu ko ci seen biir lu ci mel ne secrétaire d'état yi ak ñi jiite ministères yi dafay feeñ ci ñoom bu baax a baax tey jii Souleymane Jules Diop mu ngi joxor bi patron am di Mankeur Ndiaye di wax ne li muy tuumaal kii di Tamsir Faye moom si boppam tuumaaloon nañ ko ko li feeñ di réeroo bu metti ci diggante ñaari nit ñi moo feeñ tamit di réeroo bu metti ci diggante ku ci mel ne Mbagnick Ndiaye ak yaa xam Mbay ci diggante ku ci mel ni tamit su Touré ak Serigne Mbaye Thiam ci département bu éducation fi mu gën a taree nag réeróo boobu ak ñàkk a jokkalante bi fees ci diggante Moustapha Diop di ministre délégué ak ki nga xamante ni mooy kilifaam ci këyit yi di Mariama Sarr. maa ngi lay jaajëfal euh, Pape Cheikh Sylla ba tey ci wàllu xibaar président bu euh, convergence bokk gis-gis Pape Diop euh, woo président Macky Sall ci mu respecté engagement am def élection présidentielle yi ci atum 2017 ni mu ko waxee woon. safaani loolee bu ñu demee ba def ay élections législatives xëy na ñoom opposition bi mun nañu am pouvoir bu dañuy jàkkaarloo ak exécutif bi te bu boobaa itam ak cooxe rek lay indi ci ni Sénégal di doxe ci kàddoom sax mu ni Macky Sall la mu respecté ci engagement am barewul ay réalisation itam na mu ci def néew na lool ñu déglu Pape Diop. ñoom daal a part slogan yi nga xam ni moom la ñuy wax ay Sénégal émergent couverture maladie universelle ak xawma lan ak lan defuñu fi loo xam ni population yi gis nañ ko yéen gis ngeen léegi bi ñu demee ci marché bi la plupart des gens li ñuy wax na ngeen fexe ba jële fi Macky Sall sonn nañ xawma sax ñun la ñu ànd lam dëkk mais wax bi benn la Sénégal daal nit ñi sonn nañu te boo demee ci àll bi nga koy gën a xam donc ñu war a dem élection kenn xamul kañ la ñuy dem élection à deux ans loolu doy na waar président bi bëggul wax dara lu leer loolu mooy wane ni euh, ñi ñu jiite daal

waaye seen ñetti ati juddute googee itam lañu ñu càmbaralaale ñetti ati Macky Sall ci bopp réewu Sénégal te ñu jàpp ni dara doxul ci Sénégal Soda Mariam Gueye ñetti at képp la fi defagul union centriste du Sénégal kontaan lool ci bilan Omar Ka moo commission relation ex bu jeunesse centriste yi élection locale yi weesu nga xam ne si ci la parti bi njëkk a natt boppam bi ñu demee ñu am lu tollu ay téeméer ak ñaar fukki conseillers yoo xam si yu nekk ci ay maires ba pare parti gagné tamit ñaari ñaari def teelu anniversaire UCS dajeek ñetti atu Macky Sall bi mu nekkee ci nguur gi ak léegi résultat du président de la république day na waar. mbirum njàng euh, bañ nañ ko ba dafa am ay répercussions ci baccalauréat bi ñu génn gis nañ résultat yi nu mu catastrophique gis nañ fi ay coupure électricité yu dul jeex gis nañ fi ay capital boo xam si dina toog presque une semaine nit ñi duñu am ndox ay entreprise ñu ngi tëj. mu nekk rek ak occasion ngir centriste yi daal di sàkku rek ministre de l'intérieur daal di jóge ci bopp département bi ngir rek ñu mën a am élection bu leer te wóor. ñu commencé di noter ay fraude ñu nga ne dégg nañ ko yu nekk partout tey ñu ngi confectionné ay élections en 2017 mu le ministre de l'intérieur mu jël au moins dina mën a organiser élections libres et transparentes. engagement am rek ba Guèye maa ngi lay jaajëfal ba tey ci wàllu xibaar ñu euh, des ci euh, bu ñuy di diingat président Macky Sall ñu ci des di diingat ñay diingat président Macky Sall fas yéene jàkkaarloog opposition bi defante ko ak ñoom teggi lépp luy kàddu tuuma yu tegu ci seen kaw muy euh, ñiy féeteeg yu suturee nekk ci biir APR démb ci ngoon la ñu jàkkaarloog way taskatu xibaar yi ñuy càccuk élection gi opposition gi di wax waxi caaxaan la Amadou bu yokku ci joo moo yor seen kàddu démb Euh, ñu ne encore euh, euh, ci Sénégal du état de droit. Hein, ñu ne encore lan ci encore ñu ne fraude électorale dina am ñu ngi koy préparé ñu ngi ñu ngi defar carte d'identité yi en cachette loolu kenn mënu ko bay loolu. loolu yëpp am loolu yëpp amul amul ce sont des fantasmes ce sont des des des des illusions ah waaw te mu mënut a nekk sax président de la république ñu la ñu àndal. ñu ngi si gannaaw man bokk ak sama ministre Youssou Touré président lu mu wax ànd naa ñuy kàddu yi bàyyi ko ci waa joojee ma nga tudd eh, Amadou Bouyo Koutijo danger ci diwaanu eh, ci quartier Diacksao ci banlieue bu Ndakaaru li ko sabab mooy ay maison abandonnée muy ay kër yoo xam ni eh, kenn dëkku fa bari na lool ay xale yoo xam dañ cay faatu ndax dañu koy fréquenté te dafa fees dell ndox boole ci itam amul karange interpellé nañu kilifay ay yoonu yoon waaye ba léegi solution amagu ci xibaaru ba bëccëg gi dinañ ci dellu soit ak nanko bakayoko fukki simila ak juróom moo toftalu ci juróom-ñetti waxtu. ñaayet njot wenn montagne la boo xam ni noonu lañu koy woowee muy montagne bu am histoire jëkk a nekk dëkkuwaayu lébu ci boobule diiwaan waaye dañoo gis ni loolee dem na ba ci wàllu histoire ak wàllu passé ak euh, wàllu patrimoine am lu doon lu am solo ci wàllu culture itam ci la dëkk ñu gis ni nag fan yi am na ñu koy toj di ko utiliser muy ñuy jëfandikoo ci wàllu doji carrière yàq yu mel noonu di ko exploité ci kanam anam goo xam ne montage ba dana mujj raaf loolee nag la waa dëkk ba opposé wu nii euh, loolee na mu nekk ci sant ñoom duñu nangu ñu koy maasale amet ndiir mooy moo yor kàddu askanu yeen fii man amuma si sañ-sañ te këyit joxuma ab dogal joxuma ko bon ki jóge fële sa àll ba amu si itam ab sañ-sañ te dogal joxu te oto bii taxaw ñene dañaa toj tunda wi nii amuñu génn këyit respecté na norme code de l'environnement respecté wuñu code minier ils sont pris en flagrant délit góor ñi jigéen ñi mag ñi ndaw ñi ñépp guniya tuuti yi sax genn nañu tay ndax dañu ne suñu ñaayam jot ala woon nu tunni mam baka kenn laal defé na lo leer na monsieur le maire monsieur le ministre monsieur le directeur des mines nu ba leen laal nu tundu ñaayam yoot ba fekkente ne ab carrière lañu bëgg tundu ñangal mo upp fuuf tundu ñaayam jot te mu nga sa digg ñangal xatal ñu ba bëgg a nañu naña demin toj tundu njangal kat yi bàyyi ko ci ames ndiir leer nañ euh, les jeunes marabouts lañ leen di woowee def benn réunion démb ne nañu ay kilifa yi diine lañu yu yëngatu ci wàllu agriculture lañu bëgg mooy delluwaat ci àll bi bay ginnaaw kàddu koo teg yu bàyyi ku ci xalif général des mourides ñu dundalaat àll bi ci wàllu mbay lu may loolee nag euh, mbay day am lu muy àndale li tax ñu interpellé gouvernement bi ñu ni bëgg nañoo dundalaat réew mi ci mbay waaye faw ñu jàppale leen ci intrant ay jiw yu baax wundoon ndaje bu ñu amaloon ci Saloum fara jaase mel na ni wooteeb xalif général bu murit ngir rek doomu réew mi daal di dellu ci mbay mi tabbiwul benn yoon ci noppab tëx nde yenn ci ay doomi daara yi nga xamante ne daal nañu boote ci kuréel gu ñu dippee coordination kilifa diine yi yëngatu ci wàllu mbay daal nañu summi dara yeeg xaftaan yi ngàddu ileer yi te jubali ca tool ya Serigne Fallou Bousso di coordonnateur ba Serigne Sidi Mokhtar Mbacke dafa santoon Serigne suñu dellu ci tool ya bay waxee loolu moo tax sëriñ su bëri am initiative delluwaat ci tool yi sëriñ si ndaw si ñu ci bëri daanaka euh, ñu ci ëpp dañu meloon ne man rek nekk dakaar nekk ci seen activité bopp waaye ba sëriñ bi wootee ñëpp delluwaat ci tool yi ngir liggéey ci ak tukkib ne mekku ci yenn ci ay membre am yi nga xamante ne daal nañu tàmbale liggéey bi ci biir euh, Sine nag saalum coordonnateur bi la di sëriñ Fallou Bousso daal na it nemmeeku mekku yenn ci ay jafe-jafe ci ndorteelu nawet bi engrais bi ñëwagul dañuy laas appel bi mu jàppale ñu ndax ñun delluwaat ci tool yi ñu dooleel ci wàllu jiw yi wàllu engrais mu gën ñoo jàppale ñun sëriñ si ndaw si ñu mën a am suuf ci àll bi mën a am jiwu mën a am engrais ba li ñu bëgg a bay ci àll bi ñu mën ko bay ci wàllu tracteur yi tam ñu ngi séentu bu ñëwee ñu mën ñu cee jox suñu cër bu baax a baax a baax ak lum ci tamit ñàkkum matériel agricole bi ñu nemmeeku ci béréb àdduna bi fasantikoo Zik FM Kaolack Fara Diassé maa ngi lay jaajëfal Fara Diassé euh, ndaata naataange Casamance euh, bu ñu koy wax euh, ñoom ña fa cosaanoo ñoo ko war a gën a soxla li ko sabab mooy collectivité locale yu bëri ca googu leen naataange ñoom itam la ñuy mën a amee développement ba mën a taxawu li askan wi xaar ci ñoom Pape Kadiali Badji observatoire national de la décentralisation et du développement local mën na doon moteur buy tax gox-goxaani suqaliku loolu la nag ñu jaarale ko ci information territoriale Aliou Kandji mooy directeur des systèmes d'information ci agence de développement local. bala nga koy mën a def il faut nga xam yow lan nga am ci sa collectivité local pour que li ngay planifier loo xam ne lu wér lay doon ngir loolee mën am mel ngir mu jàppale collectivité locale yi ci seen i planification yi pôle Casamance pour ñu gunge réforme bi nag nit ñi mën a xam jumtukaay yoo xam ni dina leen euh, jàppale seen euh, liggéey man a jaar ci yoon lool moo tax faw ñu jaay li ñu duppee image territoriale suñu sukkandikoo ci kaddu directeur de systèmes de l'information def lépp ba nataalu pôle Casamance bi nekk nataal bu rafet nga xam ni ko gis xemmem foofu pour man fi ñëw jàppale leen loolu nag ñu war ko a c'est seeni potentialité def pour wan li nga fi ci am am jumtukaay pour mën doxal liggéey bi comme niñ ko marketing bi daal moy li nga dañ koy def pour jaay di ni élus locaux administration bi ak société civile ñu ngi yoon fii di waxtaan ngir de développement de la Casamance doon ñuy suqali gox bi nekk ci saw jant mim réew Pape Badji Kolda Zik FM tàggat présent euh, ñu ànd ci ak président président ni jamono manager bu yi ci basket euh, ni porte plainte Boniface Ndong sax euh, Sénégal coupe du monde de l'Espagne. Espagne. muy continuer nak di wax état bi wala ministère fédération CNBS bi fi dañu fay ko juróomi million ak lu topp li nga xam ne euh, joxoon na ko kii di ne espagnol bi nga xam ne équipe bu Sénégal la doon liggéeyal ak yeneen i primam euh, mu mel ni nag loolu sax moo ko yóbbee woon mu démissionné moom Boniface Ndong waaye ba léegi mi ngi daw ci ginnaaw xaalis bi nee na nag du ko bàyyee noonu ndax facture yëpp Euh, mi ngi ci moom démb dem na nemmeeku ji gaynde yi nekk ci préparation ñu teewlu ay kàddoom ak soxna Falk. bon fédération bees bi man aw ma la lu leen wax. parce que nekkul ñoom laa doon liggéeyal ñoom ma doon liggéeyal seen bees la voilà man dafa am luñ ma yore. boo xam ne ba tey fayuñu donc yoo xam ne mooy sama prime forfaitaire sama prime Malaga ak xaalis bi ñu waroon fay kiné bi mu tudd Ray Rayko Garcia ñëpp gis ko télé mu ngi toogoon ci banc Sénégal xanaa tubaab bi royo mën nañ koo ràññee ci nit ki ñuul su toogee ci banc bi ci match parce que dafa bokk ci liste 19 officiel ci donc su nee kooku amul ça dire que dafa fenloo Sénégal yëpp fenloo télévision yi voilà kooku nag xaalisam kenn mosu koo fay 3500 ko fay yëpp facture yaa ngeen man donc loolu laa laaj xam nga ministère la xaw ma CNBS la ñu fay ma sama xaalis ma bëggoon rek mooy sëriñ boobu ñëw ne Boniface kat dañ ko yoroon xaalis ba te ñu fay ko ci weer ci at dafa esquiver question bi rek dem yoon nañ ma ko delloo sama xaalis dafa bëri ëpp na 5 millions loo xam ne dama ko liggéey voilà donc nañ ma ko delloo sinon voilà dina mujj voilà mu nga kon nag nañ ko jox xaar. alors euh, ñu wax ci tournoi bu Dakar ngir waajal suñu gaynde basket yi. waaw ñoom nag euh, ñoom euh, ñu ngi continuer ñoom xam nga dañoo waroon participer benn tournoi bu amoon Paris ñu mujjee renoncé fi mu toll nii nag am nañ tournoi fii ci Dakar bu leen di permettre ñu wéyal seen préparation tournoi boobu nag gannaaw Sénégal Cap Vert na ci bok Côte d'Ivoire ak Mali mu mel ni dina am juróom-ñetti fan jàpp fukki fan ak ñaar ci weeru août bii di ñëw. Euh, fédération pour bees bi moo koy euh, daal organiser euh, loolu nag war a déboucher ci li nga xam ne Afrobasket Tunisie 2015 bi war a door fukki fan ak juróom-ñeent ci kon nga gis ne une semaine rek mooy des bu ñu génnee ci tournoi bi pour jëm euh, ci li nga xam ne mooy euh, afro basket boobu ci boobu aussi euh, gaynde yu jigéen ñi ñu ngi continuer ñoom it seen préparation ñoom li ñuy waajal mooy Jeux africains yi ak seen afro basket loolu yëpp di am ci weeru septembre. alors ñu wax ci wàllu Yatma Diop mi joxe xalaatam ci tolluwaay footballu Sénégal ginnaaw ay Douane ak ndam la mu gàddu. waaw jàpp na ni footballu Sénégal am na ay jéego bu fekkee sukkandiku sukkandiku nañu ci bilan bi nga xam ne moom la ñu def ci saison. élection bi passé euh, ñu gis ne tamit am na ay mbir yu doy yu ci am euh, kuy soog a ci Ligue bi jël championnat bi ki ko jëloon daaw wàcc Ligue 2 waaye nag mi ngi woo ñi nga xam ne ñooy techniciens yeeg dirigeants yi ñu gën a waxtaan pour mën a gën a teg ay jéego ndax euh, war nañu mën a daal concurrence ñi nga xam ne ñooy yeneen football yi nekk diwaanu Afrique reportage Aïcha Kamara ñaar fukk ak juróom-benneelu bëccëg bu Ligue euh, bi ndax képp saison 2014 2015 bu football ay surprise la ba jeex ak wàccub AS Pikine ci Ligue 2 AS Douane mi jóge daaw ci Ligue 2 boobu ñëw jël raaya bi mu nekk lu njëkk ci taarixu football bu Sénégal. raaya yi ñu teg yëpp mu jël ko muy Pikine ñëpp gis na équipe Pikine boobu mérité na ko saison bi dem bi jeex Pikine wàcce na ah waaw loolu mooy la Douane fi Pikine jëm moom foofu la jógee Douane boobu foofu mu jógee kan mënul wax na damay jógee foofu ma jógee ñoo nekk champion

quinze jours ñi nga xam ne ku ci nekk ñoo ŋànk loolu ñoo toog ñoom ku nekk wax lan mooy xew-xew bi tax lii mën a am Sénégal ginnaaw ñaar fukk ak juróom benneelu bëccëg yu ñu jongante Yatma Diop gis na ne footballu Sénégal mi ñu jëm ci kanam waaye waxuñu naagu kilifa yi ak képp ku xam-xamam màcc ci wàllu football dañu waxa wajal liggéey bi ngir senegal bokk ci ñu ñuy liim ci footballu Afrique prési yi ñu wax ci euh, leneen muy football Casa Sport ak. Euh, Casa Sport waajal ci coupe du Sénégal ah. waaw di waajal demi-finale yi tey jii digganteem ak Dakar sacré Euh, mu jur mobilisation bu am solo fofu ci Sigitor ndax fa lañuy jouer match bi en tout cas ci dernière séance d'entraînement bu Casa Sport euh, supporters ak joueurs yépp taxaw nañu temm euh, ngir daal route, ruutu ñii di Dakar Sacré Cœur pour mën dem ci finale bi sauver sen saison mais également ubbi buntu Afrique Elage Malick Sané reportage. jongante bi nara am entre Casa Sport ak Sacré Cœur fi ci Ziguinchor nar na nekk jongante bu reuy lu koy woné moy mobilisation bu tàkku. bu nga xam ne waa Casa Sport ñu ngi koy def a Dieng secrétaire général bu Casa Sport te état de jour yi comme ni ko waxee joueurs yi ñoom motivation bi dafa nekk lu naturel xale yi nekk léegi sa kii nañu def seen kamt lay kattan dem final joueurs nga xam ne dañ leen fekk foofu ci stade Aline Sitoé Diatta ñu yaakaar ne ni match bi dara narul yomb Mama Ninki Diarra capitaine bu Casa Sport dañ koy waajal comme ni ñu amee am final bi Dakar ñun ñoo y'a pas de sport jàpp ne ni ñu ngi xaarandi bu baax a baax waa Sacré Cœur. match bu rëy la du yomb DG équipe bu baax la bon bu ñu ñëw asaaloo match bi dañuy temps joué normal pour gagner. ci seen entraînement yu ñu daan amal lu ñu gën a liggéey mooy récupération. footballeuse bi léegi bu mënul nangu ballon si tànk yi adversaire amul place si benn équipe. Demba Ramata Ndiaye moom xam na bu baax a baax équipe bu Sacré Cœur waaye loolu taxul mu si am benn ragal. waaw waaw parce que génne na ñetti année yoo xam ne ci yëpp ñu demi final ñun lañ taseel si yoon bi ñoom waruñu ko mën a yaakaar am na parce que lii rek moo ñu defee. fii ci Sicoor ñu bëri jàpp na ni Casa Sport ak lépp lu mu am ci potentiel mënul bañ a sauver seen saison Ziguinchor El Hadj Malick Sané Zik FM. El Hadj Malick euh, dinañ ci xam dara parce que match bi tey ci ci ngoon la foofu ci Aline Sitoé Diatta euh, Casa nag dina jouer sans Mame Saer di pilier ci défense bi moom nag ma nga marok euh, di def ay test beneen demi final bi nag ñu ngi ko jàpp ji suba fii ci Dakar lay doon stade ba Diop diggante Jaraaf bu Dakar ak équipe bu Génération Foot mi nga xam ne moo joge ci national bi yéeg ci Ligue 2. ak li jaajëfal président Lamine Gueye ñu xaw ci